Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yen bo len mbok yi nga xam ne yéenay seetaan vidéo bi man la seen mbok Ibrahim Khalil Al Ibn man len di wo ci liggey bu am solo bo xam association bi tuddu Umu Mihjan ñokay taxawé soxna Fatima Lo nek ci bobba association bi li ko tax juk moy setal jakka yi ak daara yi dañuy and jël mbolo mu bari yóbbu ci jakka ak daara ñu xey fa raxas ko bamu set wecc defaraat ko bamu mu baax lool te duñ fay wa jakka ja wala wa daara ja dara lolo tax ñu tuddi len umu mehjan ndax mom mo daan setal jakka yonent bi sallallahu alaihi wasallam biñ faato ñu sul ko te waxuñ ko yonent bi bu ko yonent bi yegge dañ leen leen le tektal leen ma bàmmeel ba ñu tektal ko mu dem julle waat kon nak gaaw leen duggal ci seen alal ndax matériel bi ñi liggéey ak la ñuy fay ñay balé di raxas wul fenn lu dul ñi ci bëgg participer ñi bëgg liggéeyal yalla ci côté bobu kon numéro numéro bi dana affiché bu ko defee ngeen gaaw loo am rek dugal ca ya, bu ko defee nga mën rahas am tuyaabay rahas ja ñuy raxas raxas ga ñuy raxas jàkka ja ak daara ja barakallahu fiikum